ba noppi daal di xam le ne gis nga bennoo boo ko yaakaar ab kuréel la goo xam ni mbirum trian leen tax a ci wàllum politique dégg nga escroquerie politique wal fajiri ne transhumant yi nga xam ne nag maanaam Macky da leen a bëgg a toggaat nii defaraat leen recycler leen waaw ñi ànd moom jóg nañu taxaw lal nañ barrage ba réew mi quotidien xam ngeen Macky Sall mi le lan la def ah ñi nga xam ne ay conseil lañu te amuñu fu ñu dëkk di ay sans domicile fixe waaw a luyeel état su de concertation yeeg ñang ñang ñang patati patata yeneen ak yeneen waaw tolluwaayu politique yi réew mi waa Fuuta kontaan nañu benn yoon ci président Macky Sall ubbil tribune yéene kaay ma ne la convention ah, a ak ñeneen ak ñeneen Abdoul Aziz Ba ak ñoom mu àndal kon ca convention ba nee nañu Fuuta waaw dëgg la daa yàgg am nag ay ministre ay député ay sénateur ak yeneen ak yeneen waaye Abdoulaye Wade rek moo jël Fuutanke koo xam ne ndeyam bàyyam ay xalpulaar cent pour cent la jox ko ndomb boo xam ne fu gën a kawee ci réew mi rek waaw waaw muy Macky Sall mi le Macky Sall bàyyam ndulu ma démbee la dëkk ndeyam dëkk gi ci loon Abdoulaye Wade daal di jël Macky Sall def ko directeur général def ko ministre corniche bi lu ëpp ñaar fukki at jumaa ji toog na ko yeegul waaw Abdoulaye Wade dafa jaar laa fee coppite yi nga xam ne nag nag leen jaay ca Touba gaye te mbir ma jaarul yoon pharmacien yi nga xam ne ñoo nekk ca Touba naqarlu nañu yaccaaral gi nga xam ne moom la nguur ga nekkee waaye tamit ordre des pharmaciens yi nga xam ne complice lañ i direct info ne gaañe day dàq nañ kon seenuk atte ba attekat ba nee du leen bàyyi muy Bara Gaye ak Luc Nicolaï laas ne waa PDS day taxaw nañ Bara Gaye de waaw waaw saal ba daa feesoon dal rawatina saal boo xam ne nag fa lañ doon atte Luc Nicolaï tribunal Abdoul Aziz Diop ma nga woon tribunal waa Igitel ña woon tribunal kenn damul ñu des Thierno Bocoum réew mi bu Idrissa Seck ma nga woon tribunal Youssou Mbow parti socialiste ma woon tribunal Pathé Mbeng bokk gis-gis ma woon tribunal vérité du journée Léna Sène bu Idrissa Seck waaw Macky Sall daa yónnee woon ca ay ndaw ca moom waaye Léna Sène daal lam leen xamal mooy bu Macky Sall jëfandikoo dooleem yëpp du ma mës a liggéey ak moom Alioune Sall nga maara day taal rawatina nag maire bu Géejawaay bee di Cheikh Sarr Alioune Sall ne tontonte ci xeer yi ñuy dóor daal taxumaa jóg déedéet bu dee ñenn ñi moom mbel-mbel rek rajo yeeg télé yi man maa ngi sur le terrain Géejawaay tund wu bees la dañ koo war a moderniser bu ñu la dencee maire yi la la war mooy liggéey moo gën nga ne fi di mbel-mbel rek ñii tëb di dal nii dañoo ragal rek te nekkul ne nag xuusmaa ñàpp yee tax man may tontu tiitaluñ ma Alioune Sall ne a législative yi nii ARTP daal a eh, mbirum grand bandi lay def rek kese mbirum wayu ARTP dama ne kon jël na émetteuru banlieue TV ba ca immeuble Kébé direction bi nag li nekk banlieue TV googe naqarlu nañu kon comportement wu agent wu ARTP yi nga xam ne maanaam dañ leen a joxul kon kenn kay maître Alassane Cissé avocat nee na émetteur ba ca boppam kon la yóbbu te amu ci benn dogal woo xam ne kon jóge na ci kanamu justice laataa ñoo dem kon di dajji buntu ba le doole la def waaw waaw ne buur la rek ñu ay weer a ngi nii ñu nekk ak partenariat ak groupe IAM ngir taxawal kon télé boo bee ca banlieue ba waaye dañoo am mbéjal jekki-jekki rek ARTP daal daal di ne day dakal kon programme googee mais job yamu ca ndax nee na gis nga fréquence boobu waaw waa IAM ñoo ko moom mais comme que mënu ñoo daal télé ñu sàkku kon partenariat ci groupe des médias ñu lëkkaloo taxawal télé ba ca banlieue ba waaye gis nga ko nit ñi liggéey banlieue TV kese laa la wax commencé gul sax <laughs> loo jimbóor yi jaay doole jimbóor yi jaay doole jimbóor yi alaaji tëjal